Salaamaaleykum chers téléspectateurs ravi de vous retrouver en espérant que vous avez passé un bon week-end ñu dellu si ci seen émission seen show fas yéene waxtaanee wàllub bonne gouvernance ak itam xeex bi ñeel wàllub guerre ndax euh, président Macky Sall dafa laji ci wàll wi di laaj bu ñu taxaw samp ndax ci tontu incha allah on di ci ak Modignan nekkoon inspecteur d'enseignement waaye itam nekkoon ancien porte-parole bu OFNAC ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu plateau. maa ngi leen di delloo seen nuyoo te di ci invité bi ñu nit ñu lay gërëm bu baax a baax ci uh, teewaay bi di nuyu itam bu baax a baax ndey di met ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye bi ñu nara a ond sekk waxtaan bi door léegi léegi incha allah. alors euh, ñu doree ko ak Cour des comptes mi fësal seen rapport 2015 2016 ak 2017 euh, tout d'abord nan la ñu mënee comprendre retard ou 6 ans. parce que retard maanaam tardé. voilà ba ñu waree joxe seen rapport bi parce que yoon dafa ne at mu jot. Hmm. cour des comptes dafa war a génne rapport wés fésal ko. Hmm. ñëpp xam lu ci nekk parce que nun xeet bi sénégalais yi danoo war a xam sunu réew nu muy doxe te mënuñu koo xam lu dul ci ñu nga xam ne dañu ne di seetlu ñi nga xam ne dañu leen dénk sunu alal sunu alal hmm. ak nu ñu yoree réew mi. bu ñu leen seetee ba pare dañu ko war a xam parce que réew mi noo ko moom ki nekk ci bopp réew mi noo ko fa teg mm-hmm. noo ko ko dénk mm-hmm. mu tardé mais du moom rek tardé na inspection générale de de de d'état tardé na boo see tardé nag yomb naa xam mm-hmm. tardé la boo xam ni tardé bu ñu wut la jàpp ma ne recours des ñoom ci seen bopp rek ñoo tardé ci seenu sàgganuk bopp man jàpp moo ko nee na sax dañoo bariwut nit ñaa bariwut moo tax bëgg naa aw ma aw ma aw ma sañ-sañ ne waxul dëgg waaye mm, sama xel tey na ci ngir inspection générale d'État ga nga xam ne fee am na nit ah, tardé googu muy def da koy tardé donc toog na 2014 2015 je crois ba 2016 kiiwul ba bërki démbo Ndiaye la fa ñetti rapport yi jox ko président de la République te loi bi li mu wax dafa ne dañ ko war a fësal loolu sax moo moo jiitu normalement dañ ko war a fësal ba pare jox exemplaire président de la République jox exemplaire président de l'Assemblée nationale moo am tardé di ñetti rapport yoo xam ne yi loola jarul ñu ciy sori soleil yi ak nit ñépp a ngi ciy wax rapport ya njom njombe ya ca nekk ak njaaxum yi ci nekk dafa jéggi dayoo dafa bari ba jéggi dayo te am na sama xarit bu ma ne ko juróom-ñaar wala juróom-ñett kër yooyu ñu seet bu ñu seetal ñaar fukk seet fanweer seet ñeent fukk danañ fa gis lu mel noonu wala lu ko raw day di ma lay nuyu bu baax di nuyu seetaan di hmm. nuyu waa plateau bi Fatou di nuyu tamit ki nga xamante ne nii mooy moo di Niang alors euh, wax nga ko ni ñetti rapport ñu génneendoo ko. nee nga sa xel am na euh, lu ci tey est-ce que nekkul woon ni moment boobu noonu ñu ko waroon génnee dafa waroon a am peut-être ab jongante wala loo xamante ni bu ñu ko génnee ci waxtu woowaa euh, dina andi lu bari lu ma leen indil ci ay gàllankoor. loolu jafe naa jafe naa tontu ngir la la ne ca bopp ba ak la tax génnewu ko euh, ma gisee ko noonu rek lu jafe lay doon waaye man neneen laa ko mën a gisee. ci comme nan bu ma seetee li xew ci réew mi. Mm. Euh, ma nga jóge ci njiit mag njiit yu mag ya parce que jàpp naa ni kilifa gi nga xam ne moom lañ teg réew mi léegi muy Macky Sall te ban ko fi daataan teg mu dig nu dig xëpp yoo xam ni ñëpp xam nañ ko léegi soxlawul ma dellu ci. ba mu ñëwee juróom juróom-ñetti at def na ko fi boo méngalee la mu digee woon ba tax nu fab sunum kóolute jox ko fab sunum réew jox ko. ak ni mu doxalee ci juróom-ñetti ñetti ñetti at yile dafa mel ni yàlla ak yàlli ma fàttali ruuti rek dafa noon man dey kii fi nekk di wàdd li muy def ba ni muy doxalee baaxut ab doxalem rafetu man di mun ma fi tegee danaa fi doxal doxalin wu rafet wu sel wu leer nañ te liñ naan ger mu yàq sunu réew mi lépp lu ma mën danaa ko ci ne ba duut fi li ñu naan ñu dénk la àlli jaambur nga aakimoo ko bu ma ñëwee dana daj maanaam daal réew mi danaa ko tegaat ci yoon ñu wóolu ko teg ko fi ah, mu teg ay kuréel yu wane ne ah, yu tax nit ñi yaakaar maanaam of nag bi office national de lutte contre la corruption mu jël ab loi créé ko mu doon kuréel gu am doole gu gu gu gu gu loi bi dooleel ñu bari na xamuñu ko mu ne am na benn cour benn tribunal bu yàggoon nga xam ne Abdou Diouf janvier 1981 ba mu remplacé Senghor la jàppoon ne ñaar fukki at yi passé alal li réew mi saax saaxee nañ ko mu sàkk loi boobu nag tudde ko loi euh, euh, euh, xaw ma naan contre l'enrichissement illicite Euh, CREI cour de répression de samay illicite pour ñi nga xam ne akimoo xaalis bi te waruñu ko akimoo ñu goxi ko ñu delloo ko d'accord ñaar la fa jàpp wala ñett dellu gannaaw moo xam. xam naa dinañ egsiwaat ci OFNAC bi mais ci commission bi gis nañu Cour des comptes bi muy jébbal rapport yi comme ni nga ko waxee léegi wax nañu ni amuñu ay bras yu bari moo tax seen mbir mi yéex mais. tey jii nan nga gisee président Macky lu wax ni commission yo dina créer ay commission ngi saytu rapport yi mu mel ni est-ce que nekkul di euh, dalal xelu ñi nga xamante ni ñoom lañu tudd ci rapport yi. waaw man man damay wax toujours samay samay mbind damay wax bis bu ne Macky fonk nu fonk nun Sénégal ñi ko wateel fonk leen fonk nu nun Sénégal xeetu Sénégal ngir bu leen fonkoon am na wax yoo xam ne du ko wax. rapport yi mu jot ak li ñu ci wax lépp ni mu garaabee léeg-léeg ba jéggi dayoo muy président de la nu yaakaaroon ko lool ci yu mel nii bañ a amati réew mi mu war a jëlub dogal mooy président de la réplique jëlub dogal fab rapport yi jox ko juste ne leen seet leen rapport yi bu ci doxul na kër su du ka ko def jaaraleen ak moom jaaral leen ko ci yoon mm-hmm. foofu lañ ko doon xaari waaye dinaa wut commission d'évaluation muy kooku yi am na sama benn xarit bu ko déggee xam naa ne du kon dana waaye waxi kasaw kasaw la. li ñu doon xaar ci président démb man vraiment bi ma déggee loolu yaakaaruma woon si moom dara waaye am naa am naa yëg naa mer ci sama yaram. lay nuru day wane nii li ngeen def baax na mais dinaa ko gën a saytuwaat. wala lay nuru déedéet day daw day daw ñu jaarale ko yoon. Macky ñi ko wër. di def yu njaaxum buggul ko leen laal loolu wane na ko ay yoon yoon te xam ne rapport yi njaaxum yu garaaw ak garaaw ak garaaw yi ci nekk tey ay waa këram rek lay doon waa waa APR famille président këru boppam ak alliance bi ànd ak moom ñoom rek la te leer na ko ni mbir mi parce que dañ ko jox xam na ko xam na ni njombe yu garaaw a ci ne mm-hmm. buñ ko joxee ku yoon ñu baree bari dina am jafe-jafe te li doon devoiram mu doon yoonam li doon yaakaaroon ci moom président def mu fab ko jox yoon loolu mu def nii day nax nit ñi maanaam yoon wi ah, yoon wi dafa nekk nii muur ko jaar ko ne nanguwul a jaar ci yoon wi jaar ci yoon yi mooy fab ko jox ko ñim ko war a jox ñooña seet mooy seen liggéey ña def la ñu war rek la war a def ñu ne leen c'est très bien waaw leen góor kañ leen ña def loo xam ne mi ngi ci diggante yi ñu ah lii de baax na waaye boo la gën a ngeen dolli ñu jaar leen fa ñu jaarale ñu def njàmm ñu sanctionné loolu moomul ci réew mi ñu daan leen bu méttee méttee bu ko defee ñi ci topp dootuñu ko def parce que ñii euh, li tax ñu ñemee ko dafa am ñu leen jiitu ñu baree baree bare ñu def njaaxum yu toll ni ñoom wala lu ko gën lu ko gën a garaaw fuuf te dara fekku leen ci juróom-ñetteet yi fi Macky Sall neex ki yépp voilà bu lay nuyu Fatou. ñu lay nuyu bu baax. Euh, euh, bëggoon naa ñëw ci form bi sànq yaa ngi wax ne. normalement askan wi ñoo waroon jot ci rapport bi avant le président de la république et l' assemblée nationale expliquez ñu un peu. waaw jot c' est à public. parce que gis nañu ne dañ ko jox njiitu réew mi ah, après le lendemain ñu def conférence de presse askan wi. doo ko jot waaw kii la kii la rek la rek mais loi bi daal dafa ne. Hmm. Euh, ak mu jot. cour des comptes day fësalu rapport. boo xam ne da ciy jox benn exemplaire président benn exemplaire euh, président assemblée nationale noonu la ko yoon di waxee. Mm-hmm. sooru ñi nga xamante ne ñoom la tudd ci biir rapport bi. ah lan moo war a nekk seen soor. Mm-hmm. xanaa. les entités épinglées aujourd'hui sooru euh, euh, Cheikh Oumar Anne ba nekkoon poste sooru Kanté ma nekkoon pad kii sooru Mame Mbaye Niang ma nekkoon. Prodac et cetera. non maanaam maanaam maanaam tey yow yaa nekk